après le régime de Macky Sall Fouta xam nga dafa yaatu mais comme yow Podor nga jógee et que waa Podor nga fi fas ne toogal fas yéene leen euh, jooyantil seen ay problème ñu dugg un ci problème parce que sànq maa ngi lay dégg nga junju euh, ci seen mairie bi euh, ak ki nga xamante ni moo di l' actuel maire suma juumul mu def trois ans de de règne euh, quest n'a pas marché wala boog quelle est la situation actuelle yan problème ngeen di rencontrer foofu au niveau de Podor. voilà donc Podor moom wax dëgg yàlla foofu mooy càppaacoli quoi ci ay problème ndaxte wax dëgg yàlla suñu la waxee une commune comme Podor ak Podor bu mu amee histoire nga nekk maire boo xam ne yow da ngay jël ay décision d'une manière unilatérale sans d'abord l'aval du conseil municipal dinaa ci ñëw ci ay exemple mais tamit di jël ay maire sans nga nekk maire pendant trois ans mu soo recevoir kenn ci population organisation parce que une une commune c'est des organisations des organisations de commerçants des organisations de jeunesse des organisations de paysan entre autres. mais loolu sa association la la recevoirul mais mu ngi recevoir. ay amul benn association man télé laa toog di wax. ok waa Podor ñu ngi may déglu. Mhm. amul benn structure boo xam ni. la notre maire Racine Sy recevoir recevoir na ko foofu au niveau de la mairie. pour man soo recevoir sa kër c'est dans le cadre privé. non tu es politique pas forcément t'as droit nga recevoir ku la neex ak foofu. mais xam nga loolu day wane ñàkk respect mais tamit ñakk xam sa mission lu tax ma naa la ñàkk xam sa mission ndaxte un maire c'est un édile édile mooy kan koo xam ni population bi daf la bëgg jël la teg la. seen kanam bon y' beaucoup de maires qui vivent pas dans leur localité aussi mm-hmm. euh, est-ce que loolu ça ça empêche le. travail ñu ñu xam boobu la parce que moom quand même am na mérite parfois mu ñëw Podor def fa un mois. Mm-hmm. gis naa loolu. mais li ngay mm. wax ni c'est par rapport aux organisations. justement mais par rapport ak liy doxal dëkk bi. léegi nag liy doxal dëkk bi par exemple. dama mm-hmm. lay wax ni ñu ngi ci am na initiative bu am solo ba xam ni wax dëgg yàlla pour. foncier ndaxte ñun dañoo am problème parce que Podor tey bokk na ci dëkk yu gën a cher mètre carré un terrain de 150 mètres en dans la ville à Podor il faut au moins 5 6 millions c'est ça la réalité soo bëggee am benn terrain dans la périphérie de Podor il faut au moins 2 millions 500 3 millions paradoxe bi lan la Podor dafa xat moom jël na initiative pour maye ay terre. moom ci boppam. waaw moom waaw parce que tey jël na sax ay géomètre yoo xam ni dem nañu def la délimitation ak yooyu. Mm. mais lan moo kii y a vice de forme vice de forme bi xam nañ ni la mairie l'organe qui délibère c'est le conseil municipal. soo waree jëm ba jël initiative boobu. il les a te yëguloo ko. ah, ah jusqu'à est da nga nekk ci biir mairie bi. man nekkuma mairie bi mais en tant que citoyen. je suis les conseil municipaux rapport yeeg yooyu dama koy liir ak yooyu ba instant où yu may wax ak yow xaw ma suba. Mm-hmm. bu mu doon jël initiative bi ba commencé jël ay géomètres avec ses fonds propres il est libre mais dafa nekk loo xam ni ville soo ko yoree dëkk. Mm-hmm. da on est régi par des lois. amoo droit ne damay def li ma neex ak ni mu ko sentiré et plus grave am ay suuf yoo xam ni ay borom dañoo yoroon foofu ay tool. ñooñu tamit consulter woo leen nga boole ko ci assiette foncière ba nga xam ni bëgg nga ko def répartition. Mm. c'est grave au niveau véritablement euh, structurel parce que c'est le conseil euh, municipal qui doit délibérer la amoo benn acte boo xam ni wax dëgg yàlla war nga ko mën a def fekk jaaroo ci conseil municipal. Mm-hmm. mais deuxième chose tamit population yooyu dañ leen war a indemniser. koo xam ne da nga yor say tool ak yooyu moo tax man en tant que véritablement un fils de Podor. Mm. li may conseiller véritablement la race na xam ni nekkul nag roi nekkul monarque parce que soo xoolee c'est un peu une monarchie ah waaw ni vraiment damay xalaat benn affaire rek ñëw déedéet mooy tey ñu dem dans le sens véritablement comme lu ñuy def des coopératives d'habitat mais est-ce que yow amuloo problème personnel ak euh, ak Racine parce que. euh, j'entends rarement les les les gens de Podor ñu ñu ñu ñu dénigrer ko wala hmm. dara. les gens sont en train d'apprécier li muy liggéey. yàgg naa wax. Hmm. les euh, ce qu'il est en train de faire am na y a y a des. Euh, actif mais ñëw ma fii pour véritablement euh, di wax loolu parce que wax dëgg yàlla am na influence am mhm. indi na fa ay ay ay ay institution comme IPRES caisse sécurité il a fait beaucoup de réalisations ah. là-bas euh, am na également au niveau du district sanitaire matériel mais yooyu c'est dans le cadre véritablement mhm. de la RSE mhm. la responsabilité sociale de l'entreprise xam nañu ligne budgétaire selon impôts suñu taxe la dañ koy wax waa parce que peut-être en tant que PCA mu influencé ba institution yooyu ñëw c'est bien. d'accord mais loolu tamit taxul. taxul. parce que am yor naa sama poche damay may waa Podor xaalis ak yooyu dañoo am mairie boo xam ne c'est régi c'est des textes. te nit ñi suñu àndee ànd dafa ànd nawle ak ànd gor dafa laaj benn respect. d'accord léegi euh, fi ma lay relancer.